ci Mali njiitu réew ma di IBK Ibrahima Boubacar Keïta jot nañ ko teg loxo moom ak élimaani jëwin ji lépp nag ma nga dooree ca Kati Kati nekk dëkk boo xam ne fukki kilomètre juróom rek dox ci ba ma ko gannaaw ba ñu xëyee dégg ay sox yoo xam ne militaires yi ña ngi ko doon amal Kati itam nekk quartier généralu ñi nga xam ne ñoo di way fépp yi nga xam ne tey ji ñoo teg loxo moo di njiitu réew Mali di IBK di Ibrahima Boubacar Keïta ka jiite googalek fippu ne ñun ñoo dem ba egg fi nga xam ne moom moo di dalwaayi jëwrin ji noone ca lañ leen yóbbu fi nga xam ne rek moom moo di kat yi loole lépp nag ñu ne ay waxtaan la ñu doon amal waaye nag ngannaayu rax na ci waaye nag ci noonu ca la ñu tàmbali jaxasee dëkk ba rawatina màkkaanu jëwriñ ji yor wàllum défense ba léegi nag amul benn communiqué boo xam ne jot nañu ko fësal ci loolee nga xam ne jamono ji moo xew ci Mali ba xam njiitu réew ma di IBK di Ibrahima Boubacar Keïta lan moo di aw nekkinam ak ilimaani jëwriñ ji